lien itam si xët le témoin ko jéem laaj exactement le témoin nag ak renoncement à la troisième candidature Macky la mention très honorable ma ni kon ki que moo di Macky nag ko don dal di notel euh, won na ko war nan amna mention bu am solo parce que si.

si annonce bi nga xam ne président Macky Sall def nako pour daal tek teg troisième mandat ci souf en tout cas li nga xam modi moo di aussi mi ngi daal féliciter félicité lool euh, taxawaay ki nga xam nekk moo euh, Macky Sall en tout cas l'acte de Macky Sall est salué de partout ma ni kon acte bi nga xam tam pose nako ci ëpp na ñu ko da rafetlu lu baax a baax a baax fii si réew mi alors yex exactement itam ci renoncement ba tey bu troisième candidature président Macky Sall bu nga ngay den aussi mi ngi daal féliciter waye waaye itam mi ngi daal li nga xam nekk moo di tiit euh, est ce que Macky Sall li wax ni lu sincère ci mom moom en tout cas su nekkee lu sincère nag ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany nag moom itam mu koy daal li nga xam ne moo di rafetlu waaye mi ngi daal di alerté ki nga xam ne moo di Macky Sall waaye nee na ko ñëpp waaye itam ñëpp faaw ñu daal di bokk si yore li nga xam ne moo di élection euh, certes bokk waaye du yow yaa war a mën a trancher li na xam ni itam war nañ ko daal di war a mën a biral mi ngi si xët gu njëkk bu la teew mooy ko di léegi itam ministre bu nekk bu exactement évidence nak ak li nga xamné que modi di renoncement au troisième mandat Macky réécrit l'histoire démocratique du Sénégal ma ne kon Macky nag bënnati na li nga xamné que modi histoire bi li nga xamné ne itam biral na ko di tek li nga xamné ne mooy troisième mandat suuf déclaration de nos candidatures pour 2024 Bougane euh, décèle les non-dits de Macky ma ne kon nak Bougane nag dikkaat exactement nga si yenn li na xam ni itam Macky wax ko si boobu na xam ne muy discours bokk na war a mën a libéré li nga xam ne mooy les détenus politiques waaye itam bokk na dialogue dël bi nga xam ne itam sooboon na ko si digganteem ak ñoom Karim Wade ak ki nga xam ne moo di Khalifa Sall nag bëggaan nag dikkaan na exactement euh, si nood yi na xam ni itam tracé noxol ki na xam ne euh, moo di président Macky Sall euh, jëm si génnam naka dem fii si réew mi

muy daal de li nga xam ne rek euh, moo di euh, jóge si kàddu yi nga xam tam yëkki na ko bañ présenté wu waaye aussi Afrique ak àdduna wëngal képp ñi ngi daal di euh, saluer bu baax a baax a baax laa maturité démocratique du Sénégal maanaam Sénégal nag li nga xam tam noonu la amee wàllu ko démocratie bañ li nga xam ne que moo di président yi di fi imposé seen ko bëgg-bëgg mi ngi bu njëkk bu les échos dikkaat ne suñu gën yaatoo par rapport ak walu wóonu mel que Macky Sall entre définitivement dans l'histoire politique du Sénégal L'État itam si bu critique le mu exactement critique nag ak li nga xam euh, quel règne euh, pour Macky pendant les 274 euh, jours soit 8 mois 30 jours

kat bokk na ñuy njëkk a suuluwaat waaye ki nga xam ne mooy Youssou Ndour nag ma ngay daal di wayal ki nga xam ne moo di président Macky Sall en tout cas euh, Benno euh, mu daal di japp ni Macky a tué tous ses dauphins alors quel candidat pour Benno fii ko ki nga xam ne moo di Macky Sall nak euh, rey na ñana nga xam ni itam ñoo tes na ni ñoo waroon nekk numéro 2 bu Benno Bokk yakar alors. ginaaw li nga xam ne moo critique dañuy dal dal ci leneen bokk na xët gu njëkk bu la soleil mu daal exactement le soleil nak ak li nga xam ne moo il renonce euh, à participer à la présidentielle de 2024 quelle grandeur madame, euh, grandeur bu Mousserini, sa réy nii Afrique man ni kon ki nga xam nekk moo di Macky Sall nag am décision daal di teg souffle suuf li nga xam troisième candidature ministre gu bu le soleil au quotidien léegi itam ci xët gu njëkk bu Dakar Express mu daal di exactement Dakar Express li xam renoncement à sa candidature euh, Macky le grand ma le grand qui na supporte porte bu mag bi le président sénégalais entre euh, l'intelligence et euh, euh, ainsi dite politique. Le seul point noir qui reste à effacer, c'est l'exclusion de certains candidats à la présidentielle. Le manicon, Macky Sall leen des moo décès. daal dese ñu bàyyi bokk si li que maudit élections élection yi waaye itam bañ si am benn xaaj ak seen ministère gu bu que presse mu mu gën a mën a li nga xam ne que ñoñal li que majorité bi nga xam tam na si li sénégalais waaye itam ne nga xam ne itam histoire au Sénégal exactement itam si leneen bokk na si xet gu njëkk bu nga xam nekk moo di euh, lenn pendant daal rek exactement lenn pendant nag ak li nga xam nekk que Macky Sall par la grande porte ma ni kon Macky nag génn na euh, si buntu bu mag bi euh, ñettelu mandat wala comme sax ñaarelu quinquennat en tout cas élection présidentielle 2024 yi ma kon gi nga xam nekk moo di Macky Sall nak du si daal di bokk benn yoon si walu wu numéro alors renonciation au troisième mandat le PDS félicite le président Macky Sall appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Karim Wade

man aussi mi ngi daal saluer décision yi nga xam tam président Macky Sall jël na li nga xam nekk mooy troisième mandat souf mu daal japp ni euh, décision wo xamni tam dina daal day amal solo bu baax baax baax Sénégal waye tam climat politique bi nga xam tam dafa dafa xawa xaw li nga xam nekk moo jéggi de manam dafa xawa a délétère man aussi euh, euh, ki nga xam nekk moo di leen pendant di kan si mu gën a par rapport à réaction ñen ñi nga xamni tam ño ñoo bokké ci classe politique waye tam daal nek nekk ti réew fa nga xamni tam moy zone ko biti réew si leneen bokk na si xët gu ñëkk bu las mu exactement las nag ak ki nga xam nekk moo Macky Sall renonciation au panthéon des euh, grands du monde renonciation à être candidat en 2024 ma ni kon Macky Sall nag euh, euh, li nga xam nekk moo di renoncé na xam candidature en tout cas félicitations à nag Bruno na lool ba daal si yegg mi ngi si xër bu laas yegg exactement itam si leneen susu A la exactement ak Macky confirme sous A il se fait adouler mais ne sous susu A nag bindoon na journalam

leneen bokk na si gu nekk bu li nga xam ne moo di point actu mu daal di exactement point actu nag ak li nga xam ne moo di après le renoncement de Macky à une troisième candidature APR benn bokk yaakaar un avenir en question ma ni kon avenir APR nag ak benn bokk yaakaar avenir boobu ma ni kon est-ce que daal di taggatéem ndax suñu xool nag euh, ki nga xam ne moo di Macky Sall rey na dauphin yi nga xam ne itam moo daal nekkoon si partem yooyu ma ni kon kan moom daal di uutu ki nga xam ne moo di Macky Sall en tout cas laaj ma ne daal di ne samp mi si xët gu nekk bu point actu euh, jëm si ki nga xam ne ne moo daal utu ki na xam ne moo di Macky Sall si yooyu li nga xam ne moo di élection ma xam aussi Benno dina euh, ko war a mën a li nga xam ne moo di gagné en tout cas. Fatou euh, Abdoulaye Daouda jàll Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye euh, ak ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi si xët gu njëkk bu li nga xam ne moo di point de l'actu par rapport ak ki na xam ni itam. moo war a utu que Ousmane Sonko alors c'est exactement itam qui ki nga xam ne que moo war a utu ki que président Macky autant que pour moi. exactement ce ki n'a xam ne que Youssou Ndour mu daal ministre conseiller mu daal c'est jàpp ni Seydi tu l'as dit tu l'as fait Mandikon qui n'a ki nga xam que Youssou Ndour Mangay ngay di wayal ki nga xam que moo président Macky Sall na ko def nga ko li nga waxoon def nga ko te itam sàmm nga bu baax baax baax say kaddu Youssou Ndour loolu la di biral jëmal ko ki nga que moo président Macky Sall

naan daal di def kéem kàttanam ñu Sénégal daal di gën a war a mën a ñooñ di bokk ci pays yu gën a développé waaye itam Sénégal tam mu daal di am ay dirigeants yu responsable ñoo di kon ki nga xam ne moo di Sall nak mi ngi ci ay tanku li nga xam que euh, modi euh, justement dugg ci histoire à jamais politique bu euh, Sénégal Bougane aussi mi ngi daal di félicité ki n'a xam que modi japonais Macky Sall en posant cet acte Macky entre dans l'histoire et sauve le pays acte jël na ko Macky Sall ci histoire waaye tam euh, démocratie rek moo gagné euh, si euh, ki n'a xam que Modi, président Macky Sall yi nga xam jël Sonko va être euh, comme ça. Sonko va-t-il être arrêté ou pas Ismaïla mi ngi si modalité yi nga xam ni itam mooy daal di présenté wu devant ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko mi gu nekk bu li nga xam nekk moo la ak turbinam léegi itam mi ngi xel gu njëkk bu alerte exactement alerte nag ak discours à la nation Macky Sall soulage le peuple sénégalais ma kon Macky Sall nak ma ngay daal di soulager li nga xamné ne moo askan wi décision bi nga xamni tam itam jël na ko li nga xamné ne moo di troisième candidature souf ci suuf ma ne kon nag askan wi nag kontaan nañ lool daal di gisaat ki nga xamné ne moo président Macky Sall abandonné bobu di nga xamné ne moo mandat jamono ji ñu daal di jàpp ni ay farandoom ak ñi nga xam ne ñoo daal fas ñoom ñu bëri nag jàppoo ni ki nga xamné ne moo Macky Sall bien comme mandat mi ngi ci xelam